laaj ko donc euh, mu ngook donc bu fekkee am nañu euh, im son bi rek euh, ñu mën a jël en direct déclaration bu Soham Wardini Issa bu dee am nga voilà allo Pierre waaw waaw maa ngi maa ngi la ma Pierre Edouard waaw Issa l'antenne est à vous Euh, ñi ngi fii nag euh, ci école euh, satu Niang di centre bi nga xam ne fi la maire bu Dakar Soham El Wardini di voté moom nag ñu fàttali ne mi ngi bokk ci coalition union citoyenne buntu bi moom nag voté na ba pare di joxe li nga xam ne moo di ay lan lay yëkkati ci kàddu ci wàllum déclaration kon ñu jël ko bu fekkente ne noppi na moom maire bu Ndakaaru di Soham El Wardini nekk itam candidat bu union citoyenne bunt bi di laajaat maire boobule bokk ci set candidat candidat yi nga xam ne ñooy xëccoo kon bu fekkente ne mën nañ ko jël mi ngi commencé. mu wax ci Ndakaaru danañ voteeg jàmm dellu ci suñ kër yi ci jàmm en tout li ma gis ci centre de vote bi fii may voté ah gisuma fi benn yëngu-yëngu nit ñaa ngi ñëw ndànk dox ndànk ñëw voté génnaat dem may wax rek ne nañu continuer ba jant so bu 18 bu soobee yàlla danañ xam kan moo gañe ndax yàlla nag mooy fal may wax nit ñi ne nañ ànd ak dal ak tey bu kenn répondre à la provocation sécurisation bureau de vote ñi ko war a def tànn lañ leen ñu koy def kon kenn amul looy taxawaalu ci booru bureau de vote ku ci voté daal man li may ñaan surtout maman yi nañu sensibiliser xale yi ku voté ba pare nga dellu ci kër ga toog xaar résultat loolu laay wax di wax na campagne bi wax dëgg yàlla ñun amuñ ci benn problème ñun waaye union citoyenne bunt bi def nañ campagne bu rafet bu ànd ak dal ak tey kenn saagawuñu kenn sànniwuñu xeer suñu adversaire képp kuñ ci dajal wàcc wàcc nañ taxaw ci tali bi saafante continuer dem kon loolu mooy jàmm am naa confiance nag bu baax ndax li ma gis ci 15 jours yi war naa dal sama xel def nañ li ñu waroon def ànd nañoo nit ñi wax ak ñoom déglu leen léegi nag waa Dakaaru ñoo des pour tànn voilà je viens donc d'accomplir le vote au centre Nafissatou Niang euh, l'atmosphère est calme je peux même dire paisible les gens viennent tranquillement voter et vraiment je voudrais réitérer encore l'appel que j'ai toujours lancé depuis avant même les élections l'appel à la paix tout ce qui ne se fait pas dans la paix ne peut pas réussir. Ces élections, c'est fini. Nous avons battu une belle campagne avec l'Union citoyenne Buntubi. Nous n'avons pas eu d'incident particulier, aucun même je peux dire. Euh, nous avons rencontré nos adversaires et nous nous sommes salués tranquillement et la campagne donc s'est très bien passée. Je demande donc à la population, surtout aux jeunes, d'aller voter d'aller voter massivement pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'abstention et de rester à la maison après le vote parce que tout ce qui concerne la sécurisation du vote a été bien organisé et par les partis politiques et par les coalitions. Donc votons dans la paix et attendons les résultats à 18h Inch'Allah, le meilleur va gagner. Très confiante, je pense que nous allons gagner. Nous allons retrouver la mairie. Inch'Allah, Inch'Allah. voilà mi ngi noonu euh, Pierre Edouard euh, Faye Pierre Edouard Faye euh, mi ngi noonu Soham El Wardini mu nekk euh, ki nga xam ne mooy maire bu Ndakaaru nekk itam candidat bu union citoyenne euh, buntu bi donc Soham El Wardini nag euh, dégg ngeen li nga xam ne moom la jot a yëkkati ci ay kàddu mooy ne li muy woote mooy askan wi woote ci jàmm woote ci ak dal waaye itam discours bu nga xam ne bu am am solo la muy képp koo xam ne woote nga nga ñibbi sa kër ndax nag du ñoom ñoo war a yore sécurité bi mais sécurité bi ñi nga xam ne ñoo ko war a yore ñëpp jël nañ ko ba mu mat teyitam nag waxaale na yeneen i kàddu muy ci wàllum campagne bi ndax jàpp na ne campagne bi moom en tout cas notewul benn incident ci li nga xam ne moo di campagne électorale am battre na campagne ci jàmm te jàpp na ni ni ñëpp nañ dem wote ji ci jàmm waaye itam un vote massif loolu itam woote na ko pour que jeunes yëpp génn dem wote ji mais wote nga ñibbi sa kër te itam seen waajur fexe ba waggar ci mbir yooyu la ba nga xam ne képp koo xam ne wote nga di nga mën a ñibbi ca sa kër euh, toog xaar résultat yi ndax jàpp na ne 18 heures incha xëccoo euh, ñoom juróom-ñaar ñi euh, kenn ku ci nekk nag euh, war a def li nga xam ne moo di déclaration période de loolu daal moo am fii ci école Nafissatou Niang bi nga xam ne mi ngi ci Mermoz Sacré-Cœur ci commune bi soriwul dara sax ak kër ki nga xam ne moo di Soham El Wardini soriwul dara itam ñu fàttaliko ak fi nga xam ne moom la Barthélémy Dias di voté ndax boo jàddee rek dinañ àgg fi nga xam ne foofu la la Barthélémy Dias nekk itam candidat bu coalition Yewwi Askan Wi war a voté loolu daal Pierre Edouard moom la ñu nemmeeku ci fi nga xam ne moo di école Nafissatou Niang déclaration bi nga xam ne moom la Soham El Wardini daal di fësal ci kanam taskatu xibaar rek ci kanam àdduna bi ak ñiy suivre la voix des sans voix jërëjëf euh, merci beaucoup euh, Issa ak euh, équipe bi mu àndal yëpp ah ñuy def liggéey bu rafet ak Saliou Bey donc ñu dégtal leen donc en direct déclaration Soham El Wardini nekk maire bu Ndakaaru ci laata élection yi donc donc maire sortante donc war a donc bëggaat ñu falaat ko pour mu nekk maire bu Ndakaaru mi ngi nag dem si élection yi ci bannière coalition Union Citoyenne bunt bi nee na am na confiance te mi ngi rafetlu moom ni mu gis foofu ci centre ba te itam déroulement euh, campagne am nee na daal campagne bu jaar yoon la amul benn incident euh, ci euh, quinze jours yi campagne bi